Liss nuyu naa. waa ñoo ngi lay bëggee jàmbaar. ci loo maa ngi si jàmm bu baax. mais keroog sa combat ba léegi gars yi ngi lay déglu kenn déggagul kenn xamu ci loo nekk ci lan nga ne. waaw feeñ na am naa combat moom dafa mbër. suba lay def permettre jàkkaarloo. si combat Jackson ak Naar Sogas. waaw maa ngi waay dama gis moog Ada Fass bi ñuy waaj a bëre nga dugg si ci diggi géew bi samba sa ndënd. lan moo waraloon loolu dañ la deewoon ne la dama dëkkaleer ku ci daan wala ku ci daanu ñu tëggaloo ko mbaa wala yaa gis ne sa diggante ak ñoom laa ay morom lañ yaa ngi dégg dama xam ne maa ñoom ay morom lañ quoi maa ñoom ñooy ay catégorie am nañ am naa droit ñuy yow samp nënd parce que man ak ñoom la ko wax du man yeneen booy mais est que sa est-ce dafa am xawul teel jour combat bi bu gee jotee ngay comprendre rew bu lan gee gee julee gee ba pare ngay doog a comprendre rew non man moom laay comprendre wala dafa am boobu lay comprendre yéen ñëpp parce que damaa yàgg a bëri ko waa ku nekk naan booy bi joxuñu ko ay moromam dañ koy tànnal yoon léegi Tapha Mbeur man ma koy ñaan mu entraîné ba def nder yaa ngi dégg préparé combat bi ñëw léegi bu ma ko daanee ah gaan nañ nangu daan naa champion. kon wax ji moo ngi yegg si yow. laa bëgg bu ma ko daanee nag dinañ nangu liis daan na champion. mais ñu ci bëri nee nañu liis amul doole. waaw ñoom seen xalaat la ñuy wax rek. waaw amaana boo ñëwee man aw ma jot sax tontu xale laa maa ngi si yoon xam naa li ma bëgg te dama koy def waaw. mais ñu gis Tapha Mbeur jóge ci combat combat bi métti ko lool. moto di di jooy yi jooy bi fareegul sax nga ñëw na ko jëlal sama avance. waaw parce que day jooy ay rongoñ damaa bëgg mu jooy ay deret waaw moo tax ma aase na ko quoi jëlaat. Tafa ngay waxal Tafa laay waxal Tafa mbër yow laay waxal. waaw mu jooy ay deret ko diggante jàmm gën a passé loolu dina doy waar. waaw loolu dër bi la du dër bi noonu sax parce que xam nga Tafa mbër Tafa mbër du faana faana la du dara. waaw te bu ko jàppee dama koy rey ba rooji put bi rooji sa baat rooji put lu bees la. dama koy rendi ba doon ci buut bi. waaw ah, mais Liss lan la la dee liñ la dee laa bëgg a xam lu mu doon. luñ ma dee du lenn lu dul xale laa entraîné. yaa ngi dégg war a bëri samay morom ñi ñu boolel booleel duñ samay morom man ñii ñooy samay morom ak ñi ci kaw. dafa ci say morom la ko. dafa am bër maanaam damay damay confirmer quoi dama war a ñëw confirmer. yaa. voilà noonu la demee. Faana Faana la. waaw nan ngay wax say supporters. samay supporters lu mu leen wax ñu préparé kon ni ñu daan préparé gën a